dal leen ak jàmm mbokki internet yi ñuy safoo di setaan ba GSN TV journaliste d'investigation bi di wuyoo ci turu Pape Alé Niang daal dina ay kàddu yu njàkkare gannaaw ba nga xamante ne ñi rek ba mu jën nekk prison wak léegi dafa nekk sous contrôle judiciaire moom mi leen nak di Pape Alé Niang maanaam dañu ko tënk mënul wax ci yenn dossier yi le moom journaliste bi lee di xamle ba tey nii day amal ab waxtaan day faral di waxtaan ab benn mag mag boo xamante ne ñi rek ay atam daal dinay eh, sot feebar loolu te it état de santé demeewul noonu waaye rek kookee di mag boobee nee na rek munul déplacé wu ndax état de santé mayu ko loole waaye rek Pape ale ñaax nee na ba mu demee seeti ko ba ñu jokkalante ay kàddu maanaam ba ñu waxtaanee daal dina koy xamal ni rek ku la dugal prison maanaam prison fini ci àdduna ci kaw suuf mooy présenté bàmmeel maanaam ku la dugal prison xamal ni rek da la bëgg faat maanaam dafa bëgg faat ca bakkan gannaaw ba nga ne ni rek mi ngi li ko nakari euh, teyit ñi nga xamante ne ñi rek ñoo koy teg loolee pare guñ bu ñu ko mënee faat dañu koy euh, faat naaw kàddu yooyee rek nga xamante ne ñi wax nañu ko Pape Alé Niang euh, ba léegi dafa lëmbee li nga xamante ne ñi rek moo di xelam du xëy du ko xalaat maanaam saay bu jënee bu nekkee ci otoom buy dox ci mbedd mi loole lépp day nekk ci xelam maanaam traumatisme la ko daal di indi la gannaaw Pape Alé Niang rek même bu nekkee ak njabootam sax sax day euh, nekk ci euh, xelam tey day wax soxna bu vingt et une heures mën nga ma préparer li nga xamante ne ni rek moo di sama sac ndaxte à tout moment bu vingt et une heures euh, passégul lii di juge deuxième cabinet ba di Mamadou Seck mën na ma woo saay bu ko Macky Sall daal di joxe ndigal lekk ngir mu ñëw daal di may jàpp pabaale ñaa loole nag nekk lu doy loo xamante ne ni rek jamono jile mi ngi koy dund fii nii ci Sénégal journaliste d'investigation bi jamono jile euh, bopp bi toogul ndaxte révélation yooyu nga xamante ne nii rek daal di nañu ko koy